Euh, yaakaar naa da ngeen doon taamu di gis euh, deuxième partie nga gis ki nga xam ne mooy suñu invité mais tey situation bi ni mu fa demee moo tax donc ngeen gis ko si première partie bi il s'agit justement de euh, Adraman Adraman Sow monsieur Adraman Sow ici je vous je vous informe que c'est le nouveau DG du cabinet d'orientation scolaire Adraman la oui waaw Aliou ñu ngi lay ñu bàyyi la nga présenté gars waaw de la télévision des 4C Bon, c'est Monsieur Adramé nouveau directeur général du comité de scolaire. Mhm. Bon, je suis un habitant de mhm. euh, de la commune de Sanzan. Donc, nous mhm. ici Zone TV. merci beaucoup. ok merci beaucoup Adraman donc il y a un point de qui est ne ak ki nga donc le nouveau DG donc c'est ce nous félicitons aussi de leur bon vent Et vraiment donc c'est aussi ñu ngeek sunu de la maison le grand chroniqueur de la maison il s'agit justement de monsieur Mambay Gueye bonjour de la di leen wax bon réveil matinal di nuyu monsieur Sow avec ko wax daal di jàmm de même que Farima. merci di leen wax bon réveil matinal à l'homme de Sangalkam. mon mon très cher. l'enfant cher de Sangalkam il est là. waaw maa ngi nii vraiment donc euh, c'est le notre chroniqueur de la mm-hmm. maison. Euh, vraiment aussi digiste gis bu remarquable bi nga xam ne mu koy def ci li nga xam moy télé télévision justement de Farima. Fari ziar naa la. mon frère ça fait un bail. waaw gëj nañ gissé lool nak motax tay c'est un fierté vraiment de revenir sur le plateau. est-ce que téléspectateurs yi namoon nañ la. billahi ma len raw. ayca waxal ñu waaw jërëjëf kon mbokk téléspectateurs yi ma ngi di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci Chrome ak santam fa nga nekk jóg naa jox la loxo di len ziar di len ñaanal jamm ci matinal bi ni comme café matinal na ku nekk tangal kaasu café am top ñu def émission bu toj incha allah. ayca mu ngi noonu <laughs> Le café matinal sur la zone TV la télévision des 4C dit contre euh, Mambay euh, aussi notre invité du jour il s'agit justement de Monsieur So donc euh, aussi Farima le chroniqueur de la maison l'incontournable Farima donc sur ce aussi on va commencer à les informations. il s'agit justement de euh, l'annonce de l'annonce l'annonce de nga ministre de de la santé Diouf Sarr voilà donc euh, comme nous ko dit tout à l'heure mm-hmm. nous avons une déclaration venant de sa part Nous sommes le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Nous mm-hmm. mu exigé que mu étudiants woon que ni étudiants avant de reprendre des cours à l'université de Dakar et aux environs les autres universités du mm-hmm. Sénégal Nous avons dit la rentrée ça sera le 4 octobre Inch'Allah. nous ñu ne que euh, voilà dañ étudiants yi ñoom ñu vacciné commencer les cours

donc kooku soxlawul ñuy dem di ko naan yow vacciné wu tal force bu fekkee ni gis na si njëriñ dina dem vacciné wu bu fekkee ni tamit ça l'arrange pas ou bien gisu si li nga xamante ni doy na ko mën na ko Donc il def donc quand même dans ku si que dafa pouvoir a respecter les avis d'autrui et les choix d'autrui donc bon ministre n'a quoi sa liggéey rafet na macha allah di la féliciter de passage mm-hmm. mais juste pour dire que voilà man selon moi selon sama avis ak keneen ak keneen ak keneen li nga xamante ni mooy li gën ñu bàyyi ku je choix choisis dem vacciné wu wala mu bañ vacciné étant le nouveau DG du cabinet de réadaptation scolaire mhm. qu'en pensez-vous aussi déclaration bi nga de la famille Sarr def euh, merci Alain pour question vous me posez tout. Bon, avant tout, je vais féliciter M. le ministre de la Santé, tout ça, parce que quand comme tu dis, ça fait un, mm-hmm. petit peu bail, il y a Covid, effectivement. Vous devez vous sortir de Vraiment, donc, voilà. Maintenant, bon, euh, analyse, moi, c'est maintenant, moi, euh, il faudra aussi, bon, quoi qu'on puisse, les étudiants sont des ambassadeurs, mm-hmm. c'est les gens que les gens regardent. Donc, da ngay nekk étudiant da nekk si famille am na mm-hmm. on ne ñu ngi donc pour donner un bon exemple pourquoi pas ñu dem vacciner parce que quoi qu'il puisse arriver. que ce soit vaccin yi nekk lu baax wala mu nekk lu bon bon analyse c'est personnel. Mhm. Et la question aussi, elle, est, complexe. Mhm. Donc, moi, je conseille à, tous les étudiants d'aller se vacciner. Mhm. Parce que les plus de doivent se poursuivre santé. Parce que juste ça, nous avons plus nous, nous, pour nous. nous, Donc, c'est pour notre santé. Donc, allons-nous vacciner Parce que nous sommes campus nous mettre. D'ailleurs, comme ça, c'est un monde. Donc, pour mieux prévenir ça, Covid, nous faisons comme deux. Il y a un véhicule. Parce qu'il y a un Dakar. dem Ziguinchor jógee kenn jógee bi Dakar dem Sénégal donc dañuy yóbbu affaire yi donc man damay ñaan yàlla étudiant yëpp ñu dem si ñu ñu vacciné wu ñu def ko comme ça ñu ko loolu daal laa amoon analyse boobu laa amoon pour ma si wax mm-hmm. merci pour comme comme comme genre ñoom nday Alsane Alsane Bengue gi dañuy jóge Dakar dem Ngathie. waaw contaminé waa Ngathie après ñëwaat Dakar. voilà toog leen seen dëkk. Mambay mu mel ni waaw. voilà ñu mhm. poursuivre information yi voilà man am naa la ma ci wax en tant que étudiant en tant que élève en même ku war a vacciné voilà comme damay rejoindre toujours euh, c'est bien beau nga leen vacciné mais nañ bàyyi population bi ñu à leur place. Mhm. je parle mais de manière générale mooy comme lu ñu ko wax tout à l'heure mhm. voilà kenn ku nekk euh, na na jàpp ne c'est un devoir mu dem euh, vacciné pour aar boppam aar ñi nga xam ne la jege. voilà dañu pousser information yi ak euh, toujours mooy tolluwaayu mbas mi ñu gis ne. le ministre de la santé mu ngi si def ay jéego yu am am solo ci visite bi nga xam ne rànd na ko ci xarit général bi de Mouride muy Serigne Mountakha ñu koy ñaanal suñu borom gën ko fi yàggal mu gën a taxaw njaboot gi bu baax a baax ñu gis ne dafa mettre en place des dispositifs sanitaires yu am am solo mu gis ne dina prévoir 2 millions de masques yo xamné mom la war a yóbbu fële ci Touba ak euh, ak 1500 hommes moy ci li nga xamné moy personnel de santé yi nga xamné ñom ñoom préparer pour former leen ci wàllu woowu non mhm. pour ñu dem taxaw ñi nga xamné ñom ñoy ñooy nekk les pèlerins inshallah mhm. donc ñu avancer toujours ak euh, tolluwaayu mbass ni ci Sénégal. Mhm. ak ci aduna bi wargal këpp ñu gis ne dafa plonger 30 31 millions de personnes voilà supplémentaires dans l'extrême pauvreté ñu gis ne mu ngi la population la population mondiale parce que voilà parce que actuellement dañuy gis ne taux de pauvreté bi beaucoup gën davantage Ils disent que carrément voilà mbas mi muy am un impact négatif ci li nga la population donc donc aussi euh, pour poursuivre li nga les informations avec les échos. voilà avec les échos dañuy gis euh, tey mu que jour de vérité pour qu'ils et euh, Simon nga xam ne ñu ngi euh, accusés fraude ak euh, ay fraude de visa et passeport yi nga xam ne moom lañ tegoon seen kaw. Mhm. tey le procureur de la république mu ngi exiger mu ngi war a exiger ñu emprisonné leen ci benn d'après article yi nga xam ne moom lañ mettre en place ak euh, peine yi nga xam ne moom la mettre en en place mu ngi nga xam ne voilà allant de dix ans de prison yi nga xam ne moom la ñuy risqué ñoom ñaar ñëpp pour ñu tëdd ko donc tey daal moo nekk verdict bi tey la ñuy tey moo nekk jour de vérité pour ñoom ñaar ñëpp. Mhm voilà parce que le le encore euh, mhm. voilà ci trois trois buts à zéro ci biir. camp nou xam ne foofu moom voilà. amee ku am na mu def ak yow. seen ah, tane na <laughs> tanewul. ah en tout cas daal man dama ni. ku jóge 8-2. waaw ñëw ba 3-0 ah sant yàlla. loolu performance la de. waaw dañ leen war a féliciter sax. firi mun na am bu ñu demee peut-être bu ñu demee fële. fële ci dëkk bu mag ba. donc xam naa ne gars yi dinañ leen dem ay ay sept premiers mi na nekk ah. mën na nekk sept ah. c'est très possible ah. en tout cas ah en tout cas doy na waar de man de Barça dëgg fa yàlla sama équipe la woon de pour dire vrai sama équipe la woon. nee eh. eh, na nekkatu sama équipe. ñun ah. tey la ñu football ñun. loolu la fa jëlee Messi. Cey man je suis franc man jour laa am man jour laay topp man si Messi Messi Messi jeex part Messi sama yaay laa am. macha allah mooy sama jour donc Fary yow <laughs> état actuellement maa ngi gis démb ngay ruube gars yi ci statut yi. Uh-huh. Fary bàyyil 80 yi tamit. non man catalan yi c'est que le problème qui se pose avec eux mooy ñoom dañoo dañoo dañoo buggul koo xamante ni man mooy sama lépp muy Cristiano Ronaldo ah, parce que man moom fu mu dem maa nga fa ba mu jóge Magne dama ànd ak moom dem Real mu jóge Real ma ànd ak moom dem Juventus mu jóge Juventus ma delluwaat Man United mhm. donc kooku di dama ni dañuy nangu rek c'est fidèle dafa ñëw premier match tak ñibbi si waat doublé mhm. ñu ne déetewaay Ligue des Champions ñëw ñu ne tak mu dugal donc kooku amatul lenn lu muy mais dañ la dóor dem donc macha allah man daal kooku laa faral dañ la dóor dem n'est-ce pas ah dañ la dóor dem non dóor l'état parce que de un nous avons à rouge ah, de mi-temps. nous de rouge c'est Cristiano Ronaldo point. Uh-huh. donc c'était obligé. Uh-huh. ñu guinée pour ne pas fragiliser milieu uh-huh. double milieu défense donc l'autre technique. donc c'était tellement voilà prévisible mais néanmoins match Nous regardons. ñu Euh, man ma Koumba Dian je suis amateur ah. sama benn muy Aliou Ndiaye sama xarit. Uh-huh. ndaanaan Massa Thion. <laughs> il paraît que Aliou Ndiaye moom ci ci ci groupe les saafara la waaw saafara la en ma de dem suñu kër di ñaan maa ngi ñëw sa gaale. kii mu ngi ak bi da doon jooyal. <laughs> Oh. <laughs> maa ngi ko nuyu bu baax. bettu ma ci moom. loolu daal la amul lu ma ciy wax. dama si ah, ndax ñoo bokk na xaw bokk naqar bi. ah doy na waar daal ñoom Maadio ñoom Iniesta boo yooyu noonu tamit ñoom Pogba Iniesta bi nekk aussi jam ñaajo vraiment dégg ma xam naa ne am na lu ko métti waaye c'est que nag boo bañee defet moom da ngay bokk ci gaa yi dama Paris tey xam naa ne ñu ne Bruges lay doon vingt heures Messi ñaata biir war a dugal ma loolu laay laaj loolu rek laa bëgg xam quoi loolu laa waaw ah, dugalagul mais <laughs> non li gars yi dugal ah, benn yi ay ñaar yi kon moom moom lay leen dugalaguñu oh <laughs> sama benn waay bu eh. te mu nekk euh, théâtre boobu sax waaw est xam naa ko nee <laughs> <laughs> ah il le faut hein non oh, il est con oh, il est con ba dama le suivre mais il est tellement con que non doo comprendre ça. Monsieur bu il est li nga xam programme programme au tey des champions voilà les des champions yi dañuy à 17h45. Besiktas mu ngi mu ngi war ak euh, Dortmund. Dortmund oui voilà Sheriff mu ngi. war Liverpool. Liverpool euh, voilà mu ngi war ak. Euh, Milan Milan AC. donc ah. ñu gis ne Sporting tamit mu ngi war a ak 20h ak Ajax. Ah. voilà ñu commencé wat toujours ak 17h45. Mhm. ñu ngi gis ne Sheriff mu ngi war ak Shakhtar voilà Donetsk. Mhm. voilà ñu gis ne toujours ak Atletico Madrid mu ngi war mom tamit ak Porto à 20h aussi. Mhm ñu gis ne 20 heures moom ça sera des matchs des matchs de choc. Mm-hmm. Manchester City tamit mu ngi war a ak Leipzig ak ak Leipzig voilà mu ngi. ak sa équipe bu mag bi. PSG suñu équipe bi. voilà moom te dañuy génn nag te dañuy génn de la ñu xamul ñun dañuy génn. <laughs> ah yaa ngi ngeen génn dañuy génn Parc des France dem fekk ci gars yi dafa la ay 7 1 yooyu noonu. voilà ñu dañ lay may benn moom. voilà <laughs> en en en conclusion daal ah. dañuy gis ne Inter de Milan tamit mu ngi war a à 20 heures moom ak Real de Madrid. moom Real de Madrid donc donc c'est tout pour pour information yi nga xam ne vraiment donc. donc euh, Mame Mbaye Guèye indi loolu ñu ko tey pour euh, li nga xam ne mooy rubrique information mais juste dañuy dem ak euh, accueillir ki nga xam ne mooy mooy Farimar donc moom. tay suis mooy jàmmaaro ak ki nga xamne mo invité. parce que li nane lo xam Masamba Masamba gën la xam donc si sa mu bàyyi la rek juste ngay di ma D'accord, éducation. d'accord merci beaucoup mon frère donc comme ni ma koy à chaque fois rek. yaakaar c'est un honneur de parler de l'éducation. Ah. et aujourd'hui je commence par féliciter monsieur Adramé Sow nga un frère. un idole aussi voilà un sapeur très bien. macha allah koo xamante ni voilà sama sosie la sax. xam après téléspectateur nous avons a xool ressemblances. ressemblance et pourtant ñu dara mais <laughs> macha mel ni de non la demee mm-hmm. c'est un c'est un c'est un ami c'est un frère vraiment machallah <laughs> donc Tayjini jii li nga xamanteni fal nañ ko ko di ñaan yeen bi oyof ci kaw té inshallah ci kaw ci kanam rek inshallah loolu amul amul amul ragal quoi mm-hmm. comme niko sama waji di waxe ragal yëpp yalla te xam naa ne la ñu doxee donc amul beno problème donc euh, ci loolu nonu vraiment euh, cabinet d'orientation scolaire ràññee nañ ko bu baaxa baax si si zone bi surtout mm-hmm. zone 7 parce que Tayjini jii nii na ay étudiants yo xamanteni ou bien bëri na ay nouveaux bacheliers yo xamanteni mon université mais grâce à la cabinet d'orientation scolaire am nañ ay bourses d'études dem ay école euh, ay université privée comme ay ISI ISEC et ce genre de d'université là te loolu c'est une chose boo xamante dañ koy rafetlu di ko di di leen bu baax baax dans ce sens là te ñu gis ne tamit ñu ngi ñu ngi dëgmal li nga xamante ni mooy ouverture de l'année académique bi nga xamante ni moo di 2021 2022 donc tey jii nii su ma su ma su ma doon laajte damay laajte cabinet d'orientation scolaire lan la waajal pour cette ouverture bi nga xamante ni dañuy dëgmal merci Farimar comme ni nga ko waxee moom moom ay mbokk lañ. sama papa ak sama ak papam ay xarit. dëgg la dëgg la donc affaire de sujet bi muy wax nii. ne doo ko bal bu raconté une anecdote hmm. dama romb seen kër benn jour. yaayam taxaw si ci balcon bi du ma woo. Mhm. fari fari foo jëm. xamaloon ma la après c'est la tournée ñaama kii yoo lay woo donc c'est c'est très fier de lui ko fii mu nekk chroniqueur mu nekk jeune boo xamante il est engagé pour pour le développement de sa communauté. Mhm. donc avant tout je tenais à dire merci et merci pour Niani et tout mhm. donc concernant le cabinet de rédaction <coughs> pour l'année 2000 2021 2022 nous avons mis en place euh, beaucoup de, de, de choses qui vont permettre aux étudiants, comme nous l'avons projet de c'est mettre les, étudiants dans les conditions optimales de réussite. Mhm. Donc le cabinet d'orientation scolaire, c'est une entreprise qui s'active dans tout ce qui euh, offre de bourses, orientation, encadrement mhm. et euh, dans, les études supérieures. Mhm. Donc comme nous avons une ouverture à l'école scolaire, déjà on a débuté le travail. Maintenant, on a des locaux, donc on a un bureau sur le bureau on est équipé en des ordinateurs et tout mhm. donc on euh, travaille sur sur préparation mhm. pour le moment on est là à travailler sur tout ce qui est information mhm. parce qu'il euh, faut savoir l'information est devenue chère surtout les étudiants beaucoup de pas mal d'étudiants étudiants ont pour l'information Ils ngay gis xale Ils ont information de donc nous avons mis en place des plateformes pour informer ce qui doit aller à l'université et tout. Mhm. pour bourse ren yi moom tàmbali nañu si réception de bourse manam maanaam ren boo bëggee bourse da ngay ñëw ci cabinet bi. Mhm. parce que ñun suñu politique lenn la. Mhm. dañuy orienté. képp kuy orienté nag da ngay encadré nit. effectivement avant que avant ñu la jox bourse nous on donne pas les bourses de comme ça ñu ñu war a jox la bourse. non non on fait pas. d'habitude dañ lay jox euh, rendez-vous nga jël ñu waxtaan yow. parce que nous allons t'encadrer euh, aussi t'accompagner à faire de bons choix. ce qui est le problème pas mal pas mal d'étudiants ont le bac euh, le bac et ils ne savent pas que faire après. La question que faire après, le cabinet de réaction prend en charge cette question et c'est une question capitale. Mhm. Donc, nous avons dit le rendez-vous, nous avons mhm. en mhm. prenant en compte tes goûts, tes aptitudes et tes motivations. Parce qu'on ne peut pas prendre l'exemple d'un élève formation en sciences. C'est contradictoire. Donc, nous avons pour cette situation des fois tamit élèves yi dañuy ñëw côté social du du demee noonu te beaucoup de bourse et mhm. tout ça le cabinet de prend en compte parce que nous donnons des bourses gratuites yoo xamante ne à mhm. Mhm. comme nous mu ko nous sommes en partenariat pas mal l'école ça fait deux ans trois ans qu'on est sur le marché et alhamdoulilah on a tout fait pour <coughs> euh, l'image de notre entreprise, alhamdoulilah. L'image de notre entreprise, déjà, exemple, euh, l'un des meilleurs écoles en journalisme, oui, ISI,

non parce que euh, parce que bi bien dit ngeen annoncé li nga xamné moy nombre de places yi ngeen amoon. Mm. j'avais informé voilà j'avais informé Papa Ndiaye. am jour euh, donc euh, bam si si la jëlee won numéro Cheikh Gueye mais du coup retard bi amone ci euh, dépôt pour li nga xam mooy dossier yi. tomb teg nombre bi ma toll. surtout parce que des fois il faut savoir aussi hein, xam nga année yi day day day teel a débuté effectivement. te am na ñoo ñu jot information te ñun on a tous les informations déjà on sait école bi xam nañ envie de rentrer. déjà information am na moo tax on incite aux étudiants ou aux nouveaux bacheliers de venir déjà déposer le le dossier exemple ñu mën a dem si école euh, négocier foofu école may ay bourses gratuites mooy deux à trois. Hmm. exemple tey bu ñëwee yow nga déposer tey.

parce que est des acteurs de, de l'éducation, comme vous le savez. Cheikh bi xam ne moom moo nekkoon DG cabinet bi. après man ma wutu ko. donc moom il était le président de l'amicale des élèves étudiants de la commune de Sangalkam. Mm-hmm. mu nekk koo xamante def na si zone bi nga xamante ne wàllu éducation def na si dara. Mm-hmm. donc ñun euh, euh, Bambilor Sangalkam Kër Ndiaye et tout ñun foofu lañ gën a basé sax. parce que auparavant proposé woon nañ euh, siège Dakar. Mm-hmm. proposer à mon possibilité mais de bañ. ñun avant tout ñun lepp commune base pour répondre parce que quoi que puisse euh, les les les précédents ñu mm-hmm. problème et tout information mm-hmm. donc maintenant on a on s'est dit que pourquoi pas installer travail ici donc acquérir le monde. donc aussi bon atout la sax pour yenn ci élèves yoo xam ne comme par exemple Alim Badar nekk village bi nga xam mooy Ngàcci Nawde mhm. da ngay am problème réseau mhm. donc nekk à Sangalkam donc je pense bien que mhm. euh, tey jii nii si jamais information yi génn ñu ne carrément que ni en fi rentré ces jours temps fekk Alim Badar connecté wut par exemple mën na woo téléphone donc si sa def mën na coordonné yéen bu ko defee dinañ ko mën a jàppale ci ci li nga xam mooy mooy liggéey boobu waaw côté information moom euh, nous avons des pages Facebook

xarit boo mën ci am bon ñun am na suñu contact suñu contact boo demee Facebook ko trouvé koo mën di xam si yoon tam boo ko cabinet de réorientation boo ko tapee Facebook boo ko Google sax ñu nga gis ñu ko loolu laa am ci ah vraiment il a tout il a tout expliqué te comme n'im ko rek c'est li nga xamante ni ragné jii nii nañ ko parce que y a pas mal d'étudiants yo xamanteni c'est grâce à la au cabinet d'orientation scolaire que lañu am bourse de formation pour mën dem des formations professionnelles parce que tamit il faut savoir une chose amna ño xamanteni buñu amé baccalauréat duñu ñu dem université ou bien duñu bëgg dem université parce que université arrangé wu amna ño na ñoo xam soit dañuy dem defi euh, série T muy technique ak euh, yooyu noonu am na ñoo aussi formation professionnelle lañu bëgg def dañu bëgg dem jàngi métier pour mën guen liguey liggéey tamit nit ku nek affaire problème de choix la comme je l'ai dit tantôt donc grâce à ce à, ce cabinet là tay di ñu ci bëri c'est réaliser sen rêve euh, de par leurs études mais aussi de par leurs aptitudes té te dañuy aussi c'est à coût moins cher parce que cherul c'est quelque chose bon c'est très bénéfique dinañ la wàññil coût bi dinañ la bu baax a baax donc damay inviter ñep ñi nga voilà bëgg nañu def formation bëgg nañu dem euh, def ko à coût à coût moins cher nañu dem euh, jege ñi nga xamante cabinet d'orientation scolaire scolaire ñu jàppaleen bu baax a baax tey comme comme je le dis man dafa am benn mentalité bu mooy doxal consommation locale tey kos dafa nekk à Sangalkam la juddoo kos commune de Sangalkam la juddoo certes nag pour ñëpp la parce que tëjuñ tëjuñu buntuy pour kenn mais képp koo xamante ni yaay Sangalkam te soxla li nga xamante ni kos la koy proposé kan la waaye dama ci kos parce que tamit ñun bu ñu jàppalantewul suñu biir kenn du ñu jàppale tey jii nii bu fekkee ni ñun à à Sangalkam nous avons quelque chose boo xam ne mën nañu jàppale te lool noonu farataaluñ ko mm-hmm. mais kan moo koy farataal mm-hmm. donc à chaque fois ni ñuy jéem a def li nga xamante ni moo ñuy jëmale kanam mm-hmm. tey jii nii Adrame mi jëm ka jëm kanam c'était comme si que jëm naa kanam parce que tey jii nii man ak moom la loolu keneen ak keneen tey jii nii du ma a dem fenn di seetaan foo xamante ni tey dañ fay tuutal sànkam wala ñu fay tuutal zone donc parce que loolu noonu si man la bokk donc na ku si nekk jël idéologie boobu noonu def ko ci boppam ñu jàppalante suñu biir incha allah ca kaw ca kanam donc man man man sama question mooy que ni est-ce que cabinet d'orientation scolaire bi moom juste de basé sur pour les nouveaux bacheliers seulement wala dafay laalaay ci il nga a des élèves qui fi ici ci nga xam parce que actuellement ñu pour des vacances scolaires mhm. donc te aussi ñu ngi euh, amical amical des élèves étudiants de de la commune de Sangalkam di def des cours de vacances est-ce que yéen tamit yéen a ngi intervenir ci partie boobu noonu. Mhm. waaw pour question boobu noonu damay damay dafa di ci tontu parce que dafa di affaire mhm. nous avons fait euh, des des plannings en fait pas pas mal de journées que nous avons des pour rendre d'habitude dañu dañuy des décisions, comme des ay date hmm. date bu nekk hmm. maintenant dañ nekk si côté collecte d'informations et participer au panel parce qu'il y a des panels qui sont venus dans l'ensemble du territoire c'est juste pour inciter aux étudiants de venir ou bien aux élèves hmm. d'avoir des Euh, pour concerner les cours de vacances, nous avons décidé de rendre visite à tous les, euh, cours de vacances du, département. Je ne parle même pas de la communauté. de saint parce que même par exemple, pour nous tenir témoin de cela, nous avons décidé de venir là-bas pour discuter avec eux, changer, et venir apporter notre aide. Mhm. Parce que nous avons de travailler de fonction, des vacances nous ne mhm. mënoon na dem engager leneen. mooy dañu mhm. donc nous avons décidé de partir les voir. déjà on fait des visites. de côtoyer pas mal. les entreprises les écoles de formation et tout mais nous avons carrément décidé de partir voir les les les de vacances. Et Inch'Allah, nous allons le faire à part ça une perspective où oubliée euh, émission parce que 5 mai moi bon pour perspective en fait avant que je aussi à une dame qui m'a accompagné. Mm. c'est la secrétaire c'est la dentiste tout ce qui est de moi, je suis ah, moi c'est ma hein. ah, <laughs> c'est ma elle se ah, <laughs> euh, je tenais à la dire merci pour l'accompagnement et encouragement mhm. tout ce qui est papier mhm. donc euh, programme pour cette année. Mhm. déjà après le nous avons d'organiser une journée. quoi faire après le quoi faire avec pour l'ensemble des, nouvelles du département, du Sénégal même. Mhm. Parce que nous, notre rôle, c'est de toucher et aider tous, ceux qui, tous les gens qui n'ont pas l'information et qui ne savent pas quoi, quoi choisir après. Mhm. Parce que c'est un problème. c'est un problème, pour mhm. Tous ces étudiants que vous voyez qui, euh, partent à l'université,

E e de fit De fit fit en plus quand vous êtes un cumul il calcul y a des calculs y a des mhm. choses à faire donc l'autre beaucoup ko maîtriser wu boo système LMD maîtriser tout ce qui est supérieur. Vous mhm. Monocoder, vraiment pourquoi parce que l'enseignement l'enseignement supérieur ah, ah, ah, devient de plus en plus compliqué mhm. parce que maintenant euh, la création de l'aspect privé les écoles de formation c'est juste pour euh, euh, euh, remplacer euh, évacuer un petit peu les étudiants qui sont à l'école qui ne peuvent pas continuer. Mhm. parce que pas faire c'est quoi. non fees bu ndànk sax. dana du n'a pas fait fees pour sénégalais mais étranger c'est étranger ñoo si mhm. les étrangers nous aussi, commencé l'école donc de formation c'est juste pour pallier ça. Mhm. donc nous nous sommes entre les écoles de formation. et les étudiants. nous sommes le relais entre les écoles de formation et les étudiants. mais l'autre aspect qui qui est plus important c'est nous aidons nos frères et sœurs à mieux avoir un, un, scolaire meilleur. Mhm. Donc, je dis à, tous les étudiants à de venir nous voir juste pour conseil, mhm. juste pour prendre des conseils mhm. et s'orienter. Donc, comme dit, l'activité nous Inch'Allah, après magal suis je journée après je pour pour pour nous nous expliquer expliquer l'université, comment vivre, comment s'adapter. Parce que l'université, c'est de l'adaptation. Si tu ne t'adaptes pas, c'est difficile. Hum. Des fois, dans le il le Mais non, des gens ont réussi là-bas. Donc toi, tu peux réussir là-bas. Lola, man, lola, là. Maxal Fala Diak, l'université Fala Diak. Et donc, ñu war euh, démotiver booy. Hum. donc journée boobu nag pour étudiants yi lay je hum. dina am yeneen journée yoo xam parce que notre cabinet s'active aussi dans l'offre de formation. Mhm. parce que dañu bëgg a jël ay professionnels. Mhm. par exemple suñu suñu suñu la convention. Mhm. comme di nga dem par exemple benn télé am na xam ne secrétaire day am problème saisie yi wala problème yooyu dañuy jël ay professionnels doon ay formation yoo xam ne suñu biir la parce que suñu biir si biiru mag la am na ay machines yu formé leen. xam naa danañ ko yóbbu Caroline de. <laughs> si côté infographie bureautique. Caroline moom TikTok moo fi nekk TikTok. waaw day toog secrétariat fay TikTok. mën a voilà <laughs> ñooñu ñu leen fay formé maanaam ñu ay offrir ay formation yoo xam ne ñoo koy organiser. Hum. ñu ñëw ay professeur ñu ñëw ay salle ay salle. donc cabinet bi daal mooy noonu te lépp loo xam muy étude supérieure. Hum. muy en plus tamit dañuy euh, cette année on a décidé de faire euh, euh, de vente de fourniture. Hum. parce que dimbal aussi social day am ci am social. effectivement donc pourquoi pas ñu faire des bons. nous avons décidé même de le faire vendre de fourniture. suñu yaay yi ak suñu papa yi xam ne li ñu funte dafa métti mm-hmm. te booy yi bu ñu nekkee xale dañuy nax papa yi mm-hmm. da ngay funte cinq mille six nag pour pour éviter ça dañuy def ay bon maanaam mm-hmm. bon bi day nekk cinq mille par exemple cinq fexe ba bu dee élèves yi seen doole rek mu am si biir donc loolu lañu décidé pour cette année deux vingt deux vingt et un di remercier l'ensemble de l'équipe

statut waaw naan maa ngi ci forme fekk na yow jàng maa ngi lay romb te loolu moo gën a priorité yaakaar naa parce que actuellement boo jàngulee tamit dem ba signé fi pour da nga problème ñu naan la fi nga war a signé deux deux milliards ñu defal la fa 1 milliard 500 donc nga signé fekk na lek na ci 500 500 millions loolu da ngeen koy bañ da ngeen ni jang jang leen bu leen melni man da ngeen ñakku ji mo très cher ba nice <laughs> instant yi kay comme nim ko expliquer rek vraiment mm-hmm. c'est c'est très explicite et lim fi wax yeb dama koy confirmer mm-hmm. donc di ñaan rek comme ni ko tambalé yàlla na yeen bi oyof bu baaxa baaxa baax baax li nga xamné yeen koy sentu aussi mu doon li nga xamante ni vous allez vous allez attendre ça mm-hmm. mais man man mënu bëggon laaj sen cours de vacances actuellement ça passe non santé yàlla alhamdulilah instant bi séance un stade très très très avancé mu nga fa mom day jaar nga nak en ce moment mom dafa am ben école bu bees bu tijji waaw. xamante ni fa la nekk mais bon mo mooy xaw a jël temps mais téwul chaque deux fois par semaine normalement il il vient day ñëw japp ci jël classe boy xam nga gérer leen comme il sait le faire moom moom macha allah. xaritu xale aussi maa ngi gis keroog mu ben élève bu décédé Machallah. donc aussi Moumeli, euh, après, affaire avancé quoi. oui, avancer, avancé macha instant nous avons fait. deux semaines et quelques yoo xamante ni de cours de vacances te alhamdulilah li nga xamante ni séntu woon nañ ko ci ba jamono ji ni ñu matal nañ ko donc euh, di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla li nga xamante ni moo ci des tamit ñu mën ko eggali bu baax a baax parce que cours de vacances yi moom comme comme ni mu demee dañoo ne cours de vacances dafa bokk ak vacances donc il faut que élèves yi mën a épanouir en même temps ñuy jàngaale parce que yaakaar naa ni pédagogie bi moom loolu te ci loolu xam naa ne jamono ji ñu ngi waajal euh, cérémonie de clôture bi ren dafay am exception ren dañu bëgg indi loo xam ne lu spectacle ñu bëgg def benn 72 heures boo xam ne mooy tëj pour vacances yi 72 heures boo xamante ni c'est purement citoyen et culture parce que bëgg nañ booy gën cee découvrir seen culture bëgg nañ booy gën cee gis seen bopp booy gën see jàng tout tout en s'amusant parce que loolu mooy suñu but en tant que amical de lutte à l'agréable noonu la demee nous avons un but pédagogique mais aussi social jàppale booy insérer parce que tey jii boo demee fekk leen fa sax da doon gën a neex ngeen ñëw fekkee cours de vacances yi dañuy allah c'est une fierté c'est une fierté di ko def loolu daf ñuy neex macha allah macha allah da ngay nekk <laughs> classe xam nga di sentir sa bopp te loolu dafa di loo xamante ni macha allah adoom yi jaar ci keneen ak keneen ak keneen donc alhamdulilah di ñaan daal lépp li yi ñëpp tam dama leen invité ñu ñëw incha allah yaa kebeti kebeti yaa yooyu moom mën naa ko mu temps booy waaw voilà man bu may rebondir si monsieur Sow ñëwaat tuuti ak euh, en même temps Farima qui fait un excellent travail. vraiment di def euh, di di ko wax euh, yàlla na jën bi woyof. di ko bonne et je pense que tu le mérites hein. parce que tout jeune doit viser l'excellence comme cérémonie bu ñu fekkee woon. voilà ñu gis les jeunes de Sangalkam ñu sur ce lancé donc je vous dis bonne continuation di euh, encourager si surtout. voilà Vu la détermination l'engagement que vous avez vis-à-vis de vos frères et sœurs. Mhm. n'êtes que quelque chose de xam ne c'est pas donné à tout le monde. Mhm. voilà moi, le fait de servir euh, la nation c'est quelque chose de votre c'est un acte noble. Mhm. voilà c'est quelque chose de votre ne c'est pas donné à tout le monde comme vous m'avez fait. parce que même temps, ils n'ont pas ce temps. voilà un temps est dañ consacré consacrer seen bopp. voilà comme nous ñuy wax en philosophie ñu sommes l'homme est naturellement égoïste donc voilà il y a une connexion ngay xalaat. dëgg la wax euh, yal na jën bi woyal di ko wax euh, di invité à tout un chacun nag hein, comme sama genre yi voilà dafay xaw a compliqué mm. première fois nga nar a intégré la vie universitaire donc mm. dafay baax nga jege coach comme genre coach yi nga xam ne moom la mettre en place mm. ñu lay teg si accès di la dimbali ji problème de choix parce que man voilà quand j'avais eu mon baccalauréat j'avais un problème de choix ak du ma ko nëb voilà comme tout comme tout comme tout

problème filière yi ngeen a résoudre donc c'est une très euh, de ma de droit la choisir droit. droit la choisir waaye bu ma gisee ñu envoyé ñu message nañu <laughs> inscription <laughs> université université tëj na. ma ne xaaral def journalisme ndax sama quatrième laa commencé animation. Mm-hmm. ma xaaral dem animé yi. <laughs> jàngam di kërti kërti. voilà donc merci beaucoup euh, DG donc ñu bàyyi la gis nga tàggatoo yow ak euh, ki nga xam mooy Farima laata ñu ak. Euh, la charmante petite mignonne jolie fille madame générale. aussi sur nos deux donc nous la ak. très avant ma dit je sur quelques propos. Mhm. Euh, je suis très fier. les jeunes du département. le sujet du extra. je suis très fier. Euh, une fois c'est

sinon il yi a ñëwee dañu ah suñu de moom demoon les meilleurs diplômes du monde tout ça après un un de nekk mais boo fekkee actuellement, yoo xam ne pas génération, tam génération yi pour le mm-hmm. donc pour revenir aussi Mohamed Kabine d'orientation c'est une entreprise qui s'appelle, eh, dans tout uh, ce qui est études supérieures il faut savoir uh, les études supérieures l'enseignement supérieur c'est la formation et la euh, la transmission mm-hmm. du savoir et du savoir-faire mm-hmm dafa nekkoon moom si capital de rouge. jours bépp jeune bu naan du may bàyyi jàng yaa ngi nax sa bopp le temps jàng amul amul âge jàng bu wees comme ni ko noonu lu waxee jàng bu wees nit ki ak problème boobu mënti am tu peux te repenser et aller à à étudier am sa formation am sa métier li gën a nekk quoi nga nekk ndaw am sa métier lépp lu ñuy wax dégg nga ah mu ngi moom am na métier bi mais nga nekk si kon bi amoon dara bi muy loolu c'est à zéro mais yaa ngi avancé de yaa ngi nax sa bopp. Mm-hmm. donc pour revenir à ce l' importance de l' éducation aussi comme disait notre père l' éducation l' éducation est à est au début et à la fin de tout processus de développement. bu ñu bëggee Sénégal développé mm-hmm. nañ concentré wu si jàng bi. Mm-hmm. te de nos jours pas mal d' entrepreneurs dañuy investir si côté formation et tout donc loolu daal la amoon lu may lu may may terminer di remercier l' ensemble euh, de l' équipe. café matinal fi moom xamal ma paale kafe gi neen oh, kafe gi neen ajul rek kafe gi neen trop di di tenir des propos yoo xam ne

c'est dans la confrontation des idées que Zaï la lumière. Mhm. te yaakaar naa ni fii lépp lu ci woote xam-xam la lépp ci woote téere la boo xamante ni war nañ ko jàpp. donc ci loolu maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di commencé ñëw bi ci sama yaay. Mhm. sama papa ak suñu famille ñëpp incha allah di jaajëfal téléspectateurs yi ñu ngi seetaan mbokku mhm. Bambilor yëpp famille sama team PG. amical yëpp nag. jiital ñëw ci AX daan mooy sama xol parce que tey jii nii lépp lu ñu mën rek c'est grâce à ces amicales là. donc di leen di leen leen jaajëfal ñoom di leen nuyu ñëpp yéen aussi di leen sant di leen gërëm techniciens yeeg ñëpp maa leen nuyu. Mm. sur ce xam naa kon ñu ko beneen rek incha allah.

fashion euh, euh, bi nga xamante ne moo yor boutique bi nga xam ne moo nekk euh, kër Sëñ Touba bu fekkente ne da nga jógee Njaasaan wala Tëngéej di ñëw euh, da lay féetee sa côté càmmoñ bu fekkente ne da nga jógee Gorom Bayax Kayaar daf lay foote féetee sa côté ndijoor waa may wax euh, sama mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk si zone set bi yëpp ñu ñëw euh, doxantu si bitigu Rema Fashion Eh, bi nga xamante ne day jaay prêt porter am na góor damay solo góor ñi damay solo jigéen ñi en même temps am na cosmétique eh, damay jaay daal damay jaay sac eh, loo bëgg daal defe naa boo ñëwee ba Sérema fashion incha allah di nga ko fi fekk may woo ñëpp ñi nga xamante ne rek ñi ngi seetaan Jeune 7 ñi ngi seetaan Jeune 7 TV ma leen di woo ñëpp ñu ñëw. doxantu si bitig bi ñëw xool si bagage yi yi nga xamante ne mu ngi fi am na fi ay poudre marque crayon lépp loo xamante ne rek même ay tissu aussi dañ koy jaay lépp loo xamante ne rek ah euh, nit daf koy bëgg moo xam góor moo xam jigéen la soo ñëwee si bitig bi di nga ko fekk may woo ñëpp rek ci kontaan bu baax si waa Jeune 7 nga xam ne tey ñoo ñëwoon seet si Fashion ma leen di félicité di leen encouragé di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yéen a xam lépp loo leen bëgg si seen ko yàlla defal ñu dem ba leen di dégg comme télé yëpp ay seen TV euh, TFM macha allah di leen wax nag di courage xëcc moom bu dagul dikk te dina baax incha allah kontaan naa si yéen bu baax a baax. waa ku euh, def 77 100 62 52. 77 100 62 52 mooy numéro téléphone Rema Fashion mooy workshop bi tamit képp koo xamante ne rek bëgg na jot Rema soo ma woowee ci numéro boobu di nga jot di ma jot incha allah 162 52 waaw may nuyu ñëpp nag di nuyu sama famille tout ça ñëpp bàyyiwuma kenn merci beaucoup. man dara bul maye dara caw da siiba sooy wër yow fi lay faañol am na fi fu la day

Mm. di leen wax ne du retour si café matinal. acca mu ngi noonu ba tey donc donc donc dañuy ñëw ba ci ki nga xam ne mooy Abou Nekh Abou Nekh euh, ñu ngi lay ziare. borom sant bi tey dafa sant lool. waaw tey waa ji ko mooy. tey moom xale yi ñoo solo quoi. waaw di bëgg yëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ngi si naan nga xamante ne moom mooy Sen TV ñu ngi si fan yi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi parce que dañuy message yi nga xamante ne naan yéen léegi ñu bëgg di nuyu mooy fu waay nekk si si diaspora bi rek muy Italie muy Espagne muy France muy États-Unis di nuyu maam Baye nag ah di nuyu Alioune Badara di da a wax mu ñëw si man acca mhm. mhm. mhm. <laughs> mu ngi noonu donc nee leen euh, dañuy wàccaay li xam ne mooy màggal Touba ku ne xam ne màggal Touba daa am yenn sañse yoo xam foog moom nga far a yóbbu donc aussi yenn colin yoo xam te ji nii foog moom nga far a yóbbu donc. Euh, juste rek yi bàyyi yaay booy euh, tey jii nii ak Magal tubaab bi ñëw lan nga ñuy proposé pour ak tàngoor bi surtout ak tàngoor bi nag lan nga ñuy pour ñu ñu mën a sol surtout jigéen ñi dafa dañuy gis ñoo xam ne ñu dem yóbbu fa ay fant yoo xam ne doo sa comprendre ah, fant de ah! macha allah def seen laxasaay. yooyu moom takk seen i karabaat takk seen i ak seen i njël. moom bu euh, def comme daf rek dañuy sol seen i laaj ñuy sol seen i njëmbuut ñuy sol seen i hmm. nekk si liggéey bi sol seen i dàll hmm. nekk si liggéey bi daal. Hmm. donc est yow. te dinañ sol yére yi ñu te di wàcc di dinañ wàcc sur le terrain mais dañuy sol ay yére oyof. sol ay tissus. comme yére nga xamante ni Baye Fall léegi moom lañ xewal di jaxasi dafay oyof teg si baax na si yaram ak tàngaay bi foofu parce que foofu dina tàng trop. Hmm. waaw Touba moom dafa mën a tàng moom. surtout ak période bi ñu toll nii. Hmm. période hmm. yi nañ si bàyyi xel bu baax. léegi euh, ci karaw yi. waaw gis xale jigéen léegi bu ñuy dem bu yaay faal. pour wàññi perruque yi ak mèche bi xam nga dafay am problème pour nga dugg si jumaa yi ndax Baay Faal léegi ñu bari dañuy préféré di def seen musóor yi ko musóor yaay faal di def ñu teg kol pour booy génne xam naa bu nekkee si dal bi moom du mën a parce que dal bi moom mu ngi daal. Hmm, dañuy tendance quoi mais waaw dañuy tendance. am na <laughs> dañuy gis yooyu dañuy comprendre pas tamit ñeneen ñu ngi a sol ci li nga moom mooy été bi ak ay genre ñu ne tey buñ la ñuy sol wala tubéy jiin yan genre yi nga leen di parce que gis naa yéen bay faale yoo xamante ne yéen yaay faale yéen ko def nga xam mën nañ ko ay grand boubou ay mooy tay baas da ngay gis ñoo ay waax boobu boo fa demee dañ fay gis tissus yu gën a oyof. nga mm-hmm. gis ay waax dañuy jaay ay xartum dañuy mm-hmm. jaay voile surtout ak yére yi nga xamante ne dañ koy ñëw. dafay ak filafili filafili voilà filafili donc ay smulus yi nga xamante ne vu que foofu dafay tàng. Mm-hmm. dañuy préféré yóbbu yére yi oyof. ak popeline. <laughs> ah yére bu oyof popeline popeline yére bu oyof la. boo defee si popeline bu oyof nii def ko benn jam wàcc nii. benn jëm. waaw waaw waaw waaw. non si loolu sax man dama see bëggoon tontu abonné ah. tuuti quoi parce que comme ni ko Maguette waxee sànq rek voilà xalif général bi génn na wax son porte-parole génn na wax donc ñi ñaan euh, ak toute la population ñu respecté li nga xam ne moom mooy digle dañoo wax ne carrément à part woote Touba sax jullit dafa war a yiw d'abord. waaw ah, wax dëgg fa yàlla jullit moom dafa war a yiw. donc dañuy wax rek ana muridu laahi donc murid moom mooy jàpp na ma wuy ji borom. voilà donc mu nekk une chose boo xam ne c' est quelque boo xam ne kenn ku nekk war na si bàyyi xel. Hmm. parce que sëñ bi dafa defoon benn constat ba yabaloon ndawam pour mu dévoiler loolu ci wax loolu ñu jël ci ay mesures comme quoi que. dañoo nemmeeku woon ne jigéen ñi léegi dañoo jël yërey góor yi di ko sol di ko indi Touba te loolu nekkul loo xam ne lu rafet la moo ñu gis jigéen boo xam ne day sol caaya mm-hmm. nee jigéen moomul caaya jigéen sër la moom laxasaayo góor moom moom caaya sëñ bi nee na mesure yooyu noonu nañ gën a respecté jigéen mën naa def yaay faalam def sëram def bu baax wala benn gramme bu wala mu sol robu def mu sóoru yaay faale pourquoi pas jipp yu gudd loolu dafa rafet loolu day daaneel sama genre bi donc dafa nekk loo xam ne mm-hmm. voilà kenn ku nekk war na si mën a bàyyi xel suñ demee Touba parce que dafa nekk des choses yoo xam ne war nañ ko respecté jox ko cër mm. jox cër kilifa gi mm. jox cër ñi nga xam ne moom la ñuy fekk pour mm. nga parce que Touba dem wuti yiw moo ñu fa yóbbu dem jaamu ñu waat suñu borom donc dafa nekk loo xam ne kenn ku nekk war na si bàyyi xel bu baax donc donc donc Maguette comme yaakaar parce que ñoom yëgoon nañ ne comme jigéen ñi sol caaya yeeg ñoom ay ñumtu rek jigéen daa am moom mm-hmm. mais xam naa li naan dañ siy mm-hmm. a xam la xam laa ko jaafee ñàkk xam gis comme def rafet dafa rafetoon nag pare def ko sinap voilà xale jigéen daal boobu bëggee dégg sénateur parce que. non yëngaloon na màggal léegi leneen la. nañ ko ci kaw soo. Ah, mooy euh, kii. voilà Marichou. voilà merci beaucoup. ñu wax suñu mbokku jigéen ñi rek parce que jigéen ñi ñoo moom réseaux sociaux yi actuellement. bilaay TikTok yeeg la ñuy wax loolu yëpp ci tendance la bokk. voilà moo ñoom daal lu ñu xëy laal seen benn snap waaw kay. premier attaque matinale. ah mais lépp. ni leen leen neex de. non mais góor ñi seen sinap sinap xam nga la ah sinap acca ñu ngi ci yi ay acca yaay bàyyi faal acca na waaw café gi yooyu noonu mais yéen jigéen ñi lan mu xëy laal seen sinap nii ah voilà lii laa laal tey première attaque ah dañ ne soo gisee ñoom yaay Fall. dafa hmm. am solo dafa am tur boo xam ne dafay. dafay yóbbu nit ki. lu mundu pare mu delloo mu ne hmm. nga ñu bëri ñu xamul dañuy jaamu ji. actuellement nag ñaari mooy yox noonu day dem pour la fexe màggal bis bi. fexe delloo bis bi ñu kër. Uh-huh. nga xam ne mooy Serigne Touba mu liggéey dafa rëy. ñaari mooy wax nii nii ça existe maintenant que de cadeau non. tour la rek léegi. mais tour la rek jigéen ñi am na la gis naa xam nga jigéen moom loolu parce que bu ngeen tamit ñu woy ne xam nga. nag da ngay bëgg boo sañsee ba rafet. waaw def sa bu rafet da bëgg tamit publier. sa sa sa li nga sañsee. Mm. parce que c'est que un peu loolu. am na ñoo xam valise dañuy yóbbu valise. valise dañuy yóbbu rien que di sañsee di teg. gis nga damay dem ci yàlla aada cosaan bi kenn mënu ko fi jëlee ah. te gis nga diine am na fu muy toog day ànd ak loo xamante ne xam nga la laay bañ ku fay dem di def di wax lu bon di def lu bon mais nekk ci jumaa Tuubaa fotow ci vraiment mu doon souvenir boo xam pour man yàqul dara tamit aayu xam nga dem ba ma xatal mu dara wala wax si biir kaaba gi ñëw fotow ak kaaba gi ñëw denc ko sax tox boo xamante ne bis bu sa doom màggee ne ne papa ni kenn nga bi ma demee màkk xamul dafa neex mais dafa dafa ëpp quoi moo tax sëriñ bi di si joxe ay ndigal dafa ëpp gars yi ngay defee loo xamante ne dugg fa wala dugg di jéem a dugg xam nga sëriñ Tuubaa di jéem foto yoo xamante ne bokku ci

ci li nga xam ne màggal Touba parce que bii mooy euh, émission bi ni euh, épisode bi moom moy dernier épisode ba li ñuy demaat fi nga xam mooy diwaanu màggal Touba donc magal Touba danañ fa defaat benen émission bo xam direct euh, ci li nga xam ne Café matina donc ak ay kilifa diine ak kilifa aada donc ak sëñ bi nga xam vraiment mu nga fa donc tey jii lan lañ mëna xaar ci amul neex fi nga xam moy moy magal màggal Touba. waaw dimay wax rek sama mbokku artiste lay lay lay jëlee def nga tey mooy ñun artistes yi rawatina nga nekk artiste mu xàmmee la wala ñu ràññee la si dëkk bi. nga xam ne màggal Tuubaa dañ loo xam ne lu kawe la lu tawe la te ñun ñëpp xam nañ euh, muy ak foo mënta féetee rek muy soo déggee kalaan bi laa boo ko déggul nag yaa xam mais boo déggee kalaan xam nga ne ñun ñëpp ay murid lañ xam nga ñun ñëpp ay murid lañ moo loo xam ñun ñëpp dañuy jaamu yàlla parce que moom moo ne muridullaahi muridullaahi moom kii jaamu yàlla kon kii jaamu yàlla bu wootee su kaay ni jaamu yàlla kenn warul des bu nekkee yàlla nga gëm bu nekkee sa salam nga gëm kon moo tax may wax sama mbokk sama mbokk euh, artiste yi xam ne ne bu ñu demee Touba dañ faa dem pour jaamu ji yàlla dañ faa def pour yokk mais nekkul dem fa xam xam rek di def yenn yi nga xamante ne ba bari perturbé dali parce que benn année dem naa màggal Tuubaa fekk benn année bu matul trop mais après dafa perturbé dali ba dalay wër nit ñi dalañu lu moom nga xam ne yow artiste da nga ñëw Touba pour màggali mais après da ngay mujjee perte bi ñuy daw fa di ñëw di moo def di moo def mais mais nag moom tus bopp yow xam nga dëgg la mënul ñaax xam nga am na moment boo xam ne da ngay doon artiste am na moment boo xam ne yaa maanaam yow doo doo dund dund artiste waaw loolu laa bëgg moo ñu bañ ko dund foofu mais pourtant duñ ko dund de loo xam ne dañ koy dund pourtant dañ ko dund dama ko gis dama ko dégg dama la wax nekk dama ko créé ma dama gis bu ma tudd trop mais dama dem ba Touba gis ne muy solo loo xamante da ngay wóor ne kii xam nga dafay succès bi dama naw kii nii Billy Billy Billy mooy ki doon suñu prémarisé doon xamante wu mais dama ko fekk Touba. kan nga Billy ñu doon gisee peut Billy waaw Billy. waaw Billy waaw ok Billy ko Touba. Uh-huh. ak melokaan boo xamante ne yàlla xam ne dama kontaan. dama ne Baye ñoo xam am ñoo xam ne dañoo mën a. Touba da nga a am melokaan Touba. xam uh-huh. nga laa bañ dem Touba di yore beneen jikko yore la. man. loolu yëpp gos man dama star non man star la mais su ma tamit pour indi ñu ne artiste. dofi comme ñoom ay ñoom man ñoom ak ñoom cas noonu waaw par exemple bégloo leen ci màggal te te te du am loo xamante ni. bégloo leen wala bégal leen. bégloo leen wala bégal leen. bégal leen ci dañ naan nag balaa ñuy xam ne amuñu effort la wala fort. Mhm. dañuy dem bu ñu xam ne ñu war a jaamoo yàlla du indi beneen méthode amuñu day doog a daal rek. ay boo ah, fa demee di wax sa waxi dof yi ngay wax fii. méthode boo xamante ne. na nga wax loo maîtriser rek. na na nga wax loo maîtriser de. ah waaw ñu maîtriser la ñu wax ñun ñun muy loolu ba pare.

donc ñu bàyyi ko xel que ni dañuy dal fi nga xam ne mooy euh, Daaru Minam. wetu kër sëñ Muntaxa. ci côté Jumaa la. waaw ci Jumaa la. waaw gën a neex ma la Jumaa te mhm. taxaw ci kaw balcon bi di xool dóor daf may neex. Ah. am ñoo xam ne yàlla xam ah. kontaan. xanaa xanaa waa xanaa waa si xew ga ngay wax. waa si xew ga. ay waa Daara Mar naa ñoom ñooy gars yi noonu. ok ok donc ok donc donc donc. Ah. donc. Mm-hmm. di la wax rek wax naa yéen ko jégal parce que waa télé

donc ñu war a ñëw marqué waa sunu empreinte fi nga xam mooy Magal Touba donc xaar leen Magal Touba la zone 7TV euh, fi nga xam mooy Daru Minam euh, kër sëñ Mame Mor Mbacke sëñ Mame Mor Bousso donc këram ak fi nga xam ne mooy kër sëñ euh, Mountakha cinq minutes nga koy dox donc aussi sori ak jumaa ji donc ku bëgg ñëw foofu rek mën nga woote si sama numéro 77 128 68 29 wala tamit euh, nga euh, jël numéro bi nga xam mo nek ci li nga xam moy euh, suñu suñu carte de visite yi donc nga mun rejoindre li nga xam moy la zone tv da ngeen gis yeneen plateau yu bees yeneen plateau yoo xam da ngeen ko gis ci li nga xam moy magal Touba bi ak yeneen artiste ak yeneen daanaan donc juste rek ñu bàyyi la neex c'est une minute une minute abou neex. wa tey moom nee naa la comme dañuy waajal ma. bu gaawee neex ma abu neex sañ sa woo. abu gëmal yàlla abu sañ dama woo. parce que da nga soxor de kii dama soxor gis nga ni lii moom lii moom dama koy waaj mais daal yi daal yi moom la ñuy kii daal yi moom la ñuy daal yi moom la ñuy bayee France sama yëngu dama koy bàyyi daal li nga xam ne sama grand moom ko jëndal Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gii nii Côte d'Ivoire gii nii. waaw léegi Côte d'Ivoire gii dama ko jëndi Côte d'Ivoire indi ko Sénégal. waaw Côte d'Ivoire moom la ñu béyee kii. damay wax si bi da nga ko kii de. saaga aw neexee ma. xam saaga ma keroog sa dikk. waaw gars yi a dem fi nga xamante ne moom mooy Touba préparé ma ne maanaam léegi dama suñu toolu Serigne Touba. Mhm. ba pare dugg Serigne Touba la ba pare ngeen xam ne Serigne Touba moom kenn la moom kenn la. képp donc kese boo xamante ne mun naa keneen def ko. kon tey léegi day wane rek pour mu ñu kontaan ci moom. Eh, ndeysaan dafa am benn pël Fuuta bu jógee woon Guinée. Aliou pël Fuuta. waaw pël Fuuta waaw. mu jógee Guinée ñëw Sénégal. Euh, bu góor dee da nga ko baax. mu jógee nag Guinée ñëw hmm. mu war a day entraîné. entraînement ba pare sol yërëm dem ci mayga bi. bu demee ci mayga bi nag xam nga. mu jënd ko lu mu nekk mais bu mu duggee waaye dafay fekk foto Serigne Touba. ci tax ko may ko mu dugg rek foo foo fekk foto Serigne Touba ma dugg rek ñu ne la li ñu ne la xam nga affaire bi jaaxal ko quoi mu gàddaay dem côté Saalum yooyu benn dëkk bu ñaar gis ko Tukulóor mu nee ba gis ko Tukulóor nag mu taxaw. <clears throat> loolu xaar mu wàccee mooy dana may ci may mu ci may bu demee ci may rek mu mu toog léegi trois Sénégalais si biir rek gis foto Serigne Touba kii. kii moo bëgg Mike kii Mike moo leen fekk naa ko. <laughs> Mike mu ngi leen fekk naa ko waaw kii moo bëgg que li ko a mooy sëñ bi dafa nekk koo foo ko man j'imagine fi ne nii jaaykatu meeg yi ak actuellement ak Magal Touba dañuy lambale de. ah dara xam nga xam nga loolu du dara. Mm-hmm. xam nga dara du ñuy lambale sax duñu lambale. Mm-hmm. parce que gis nga Touba su jotee Magal bu jotee wallahi yokkute na. waaw pour doomu aadama yëpp kenn warut a jaay nag ay bu jëlee ma kenn warut jaay dañoo war di maye. du baax ci économie maye. lan ku fa yóbbu mburu di ko jaay. ay ku jënd ay masque bu yóbbaale dana koy jaay yërëm naa la. a gars yi daal ay masques que damaa. jaay ko tuuti ndékki yi tamit yërëm naa leen corona bi mën naa jaay kat yi laa yërëm fi ne nii màggal Touba jaay ci dal nee la lépp ay njëriñ la. lépp njëriñ la masque yi boo ko nga soxla gis nga boo ak commencé du dara du voilà donc awtaal awtaal damaa nekk émission dégg non léegi léegi le problème le problème en est que le problème en est que actuellement nii Touba bi dañuy bëgg ay di mais da nga xam du lu ñuy su yóbboo loo xam lu ñu lekk moom xamal ne carrément mun na jar mais boo yóbboo lu ñu lekk saa yi da ngay lamb la de. yaa ngi dégg keroog la nee na moom mun na la fay pour nga lekkal ko yow. na la suñu maam war maa <laughs> xam mhm. de. waaw mu ne màggal mun ne la wax. waaw man moom man cinq laay lekk koo laaj nag daf koo laaj par heure nag heure la ko laaj wax ko par jour de par heure. heure bu ne na ko de na ko def na ko yow léegi bi ñaata ñaata lan nga mën a lekk ñaata ginaar nga mën a lekk. waaye sama doom waaye mënul lekk loolu. cinq ginaar moom moo si nekk sa benn benn man moom na ma may kiir rek man kii mm, ma kii ma bëriwul. man naa am ndox. <laughs>

direct lay doon fi nga xam ne mooy la zone 7 TV bu ngeen duggee ci li nga xam mooy canal bi da koy da koy da ngeen koy am donc euh, bouquet bouquet bouquet 3 donc euh, yëpp da ngeen fekk foofu li nga xam mooy mooy mooy mooy zone 7 TV am live on fi nga xam mooy Magal Touba direct donc ñu ngi daal fi nga xam ne mooy kër sëñ Maam mooy Bousso donc boo ñëwee foofu rek boo wootee si suñu numéro yi mën nañ la jël si donc aussi ñu bàyyi juste euh, suñu yaay booy mm, soxna Maguette Moussa mi mu tàggatoo. ah mais soxna mu seen laal moom yooyu parce que yaa ngi yow yaa ngi ay jeunes séeréer kenn xamul. ah maa ngi ah. Ah, la màgg màggal liaison. ma safar liaison donc. safar gi safar gi nag àjj dimanche bi di ñëw kër sëñ Maam Mor. incha allah ah waaw ñu dem foofu ñu safar ba mu saf. waaw dañuy safar naan kafe dóor njël yi si ndigg waaw di leen wax di daje prochain rendez-vous mu nekk fii ci Touba. di leen wax ne café café matinal bi foofu lay amee. da ngay ñëw de waaw incha allah. maa ngi fa di leen wax bye bye ba ñu waaj a màggal gi daal. koy nuyu koy nuyu nuyu ñëpp. nuyu ñëpp. na nuyu sa sama caméraman nuyu sama. am neex. waaw maa lay fay sama jigéen.

ñëpp ñëpp ñëpp. a xaar. loolu laa la xaar nga nuyu te nga nuyu woo donc Mame Mbaye nuyoo. voilà man damay conclure ak manqué fan di daanele rek di remercier suñu équipe technique bi. di wax mm. gars yi nañu waajal bu baax a baax. di remercier Diawo mi xam ne moo nekkoon ci caméra bi moom ak Babacar sama muridu laa nee naa ko ana muridu waaw comme niñ koy waxee rek ñu ne allahummi rahmaanu fi sabina bi anani xadima dul madina donc dañoo fas dem fële ca diwaanu Touba pour màggal li nga xam ne moom mooy 18 safar bi soobee yàlla màggalaat jéem a delluwaat suñ borom ci si si si di jéem a delluwaat ci suñ borom di touba bu baax a baax day jégal di remercier en même temps gauche le grand design mooy l'infographe de de la maison di remercier aussi sama di nuyu sama tante bu baax a baax ki nga xam ne sama yaay la voilà sama yaay depuis Touba Ndindi borom Ndindi maa bu nuyu tamit grand depuis l'enfance moo nekk di côté de la France mu war a jël soxna bu ñu nee suba la tu suba la màggal Tuuba incha allah soxna war a si di ko wax. di profité voilà di profité wala di ko wax heure <laughs> ménage na sëy bi barkeel bi ngeen mm. andi ay Cheikhul Khadim ak ay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waale sama grand Ibou Diaw comme d'habitude mm. borom Espagne di leen wax euh, voilà màggal gi daal nañ ko waaj bu baax a baax. Mm. waa zone 7 TV moom voilà événement bu exceptionnel ngeen yi am. dara du ko dara du leen manqué incha allah. voilà donc kon ngeen bàyyi ma nuyoo ñu jeexal. bu taal doo fayu. abu ne fii laa la invité plateau nga toog fii nii ñu ñu ñuy tàggatoo nga tàggatoo pare mu des man abu ne nga ju dem waaw salaamaaleykum maa ngi rëbb yi daal la bëri moo très cher. ndeysaan. kon bi mooy dernière émission boo xamante ne ni ñu koy war a defee Touba. sama mbokku ministre maa ngi leen di baax a baax a baax su ma doon daal daa koy bayaan ci mel ni taa ami ci mel ni ñoom seen kilifa bi ñoom daa tuuti ñoom ñu daan ñoom maa leen di dèjà maa leen di maa leen di baax maa leen di waaw. du nuyu waa ñoom Daara Gomis waa ñoom ñëpp daal waa daara ñëpp maa ngi nuyu ñëpp a jëkko jëkk. du nuyu nga xamante ne moom mooy commissaire ak ñoom Mbacke Mbacke Ndaw. Mm-hmm. xam nga di wax Mbacke Ba Diagne di la wax ak màggal bi ñu ngi ñëw waa ñoom Babacar Sène ñoom Seydou Ndaw du nuyu képp kuy murid rek maa lay bëgg bu baax a baax a baax a baax di wax ne ah Touba la ñuy yokk du nuyu sama mbokk murid ba léegi Alpha Alpha Ba suñu mm-hmm. murid boobu Alpha maa lay bu baax Alpha Ba. Mm-hmm. Alibara. voilà yow bëgg nañu ñu bëri quoi. ne ne nuyu naa ñëpp. waaw waaw képp koo xam ne yaa ngi waaye acca ci noonu rek laay laay jaare man nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Aziz depuis euh, Gorom 3 donc euh, di ko wax ni vraiment démb moo doonoon anniversaire tourndom ma Abdou Aziz Dabakh laay Dabakh donc euh, vraiment mu doon koo xam ne kilifa foole goo xam ne vraiment da doon li ñu koy waxee ni ni ñu faral di waxee rek tappe xol yi vraiment doon na koo xam ne vraiment donc ba tey ñu ngi koy jooy voilà su aussi ma jaar ba fi nga xam ne diwaan ngaa ci nuyu sama yaay booy ma très cher ma vida l'amour de ma vie donc euh, maman Tening donc euh, di la tu me manques énormément euh, dana aussi nuit, nuit sama général donc elle me manque aussi donc madame madame Bonheur ah, ok voilà ci hein. mm-hmm. voilà donc sur ce aussi je vous donne rendez-vous destination Magal Touba euh, café matinal sur la zone TV la télévision des 4 c'était café matinal ABD contrôle d'ailleurs